diine islam maye ko kujje day may góor bi nga xam ne jullit la mu am ba ñeenti soxna ay soxna yoo xam ne nag dalee na war a yemale. quartier Grand Médine bu Ndakaaru ñu fekk fi sëñ bii nga xam ne am na ñaari soxna soxna yi di ko teg fitna. lu ni mel dara waralu ko lu dul rekk ne dafay dem takkali frère ñaareel loolee moo indi merub soxna yi nga xam ne ay aawa lañu. biir na ne góor bu amee soxna yu bari du ñàkk mu jël ca kenn mu doon seytaaneem di gis-gisu père de famille bii nga xam ne bëgg naa am ba ñeenti soxna. yàlla mi sàkk doomu aadama yi sax tolloo xoolal sa baaraam juróomi baaraam yi sa ñëw tolloo tolloowuñu sa doom yi nga yor sax am na ko ci gën a soxna si moom aawa la waaye amul wujju naam sax bañul kuje moom jàpp na ne nag. ñàkk tolloo gi nga xam ne góor yi ñu ngi koy def ci soxna yi loolee tey moo indi fiiraange gu metti gi ak yenn defante yi ci biir kër yi. pourtant loolu dara newu si de loolu daal mu ngi aju ci ku wóor ki rek. yamale rek yamale rek boo yamalee rek sa kër neex. soxna jëm moom ñaareel la moom nag jàpp na ne position bi amul solo moo tax sax nag nekk fa di defante ak wut jëm. min pour man gëwuma polygame xam la moo tax gëwuma ko ku nekk war ngaa mën a doon sa aaw bopp sa ñaareelu bopp sa ñetteelu bopp sa ñeenteelu bopp loolu gëm-gëm la bu nit di demee. yow li la sa bët may sa fit wal na la ko may. sëñ bi moom am benn soxna bëgg naa am ñaareel moom mbay nag jàpp na ne kujje gi day tax ba couple bi dal di am stabilité. stress moo bëri ci gars yi quoi. te boo ñëwee sa kër affaire bi dafay métti trop pour nga toog sa jabar chaque jour chaque jour même kàddu il faut des ngay xaw a génn pour mën a am feneen foo divertir quoi. féministes yi xeex nañu ko ba tàyyi waaye mënuñu ci dara ndax polygamie sax nag dal dinay résister ci ñëwub soxna yu takku ci wàllu politique bi ginnaaw ba ñu dal di voté loi bi ñeel wàllu parité ci atum 2010 ñoom ñi tey tolloo nañu ak góor ña fële ci assemblée nationale waaye lu ni mel taxul ñu ubbi débat ci mbir mi ni ko yeneen réew yi musulman yi defee